accompagné nañ ministre euh, euh, Moustapha Guirassy euh, mu visité ñaari centre d'examen bu bu FEM benn bi Serigne Cheikh Anta Mbacké ska SCAM bu Géejawaay benn bi Pikine bi école privée Notre-Dame fépp fu ci dem macha allah candidat yi wuy si nañ ci en masse daanaka fee six absents la ñu am.

Euh, depuis inscription euh, ci liste candidat ba ca euh, proclamation de résultats, le processus bi dañ ko digitaliser loolu dana tax nga nga mbir mi gën a xaar résultat yi ay ay ay ay jours te résultat yi également information yi dana disponible à temps réel té ku ci nek mën ko mën nga ko mën nga ko am donc kenn doto natable né suma dom amna wala amut euh, bo bo boo duggee ci plateforme rek da nga dañ la ranger loolu mom dañ koy rafetlu di euh, vraiment féliciter euh, le ministère de l'éducation ak tout le personnel de la direction des examens et concours ci l'immense travail qu'ils ont abattu ba nga xamante ni arrivé nañ ci lolu dafa mel ni sax sen association bi amna peut-être ay doléances yu mu bëgg euh exprimer ki nga xam mom modi moo di jëwriñ ji ñu dénk wàllum mu ci walum jàngale bi. waaw euh, doléance yi nag euh, dañ koy dañ koy dugal encore ci enveloppe ndax euh, am nañ yaakaar ne danañ giseeg moom ci diir bu gàtt bu ko defee de vive voix lépp loo xamante ne nemmeeku nañ ko comme ñaxtu lépp lépp loo xamante ne xalaat naa ko nañ ko ci luy doxal njàng mi ak njàngale mi parce que ñun également du du du duñ rek ay parents d'élèves mais dañu bokk si système bi di di di xalaat ci système bi doon jëf ci système bi donc am nañ xalaat boo xam ne danañ euh, dana mën a jëmale kanam système bi bu dégloo xalaat ñëpp euh, bu bu ko boolee xalaatam del décision am nañ yaakaar ne lu bëree bëri dana soppeeku ci doxalinu système bi jërëjëf jërëjëf